سليمان بصرف المسيات كيما تقود سمام للرسيات أدل إذا ازداد قلبي أذن بهجتها ووجهت لي هدايا بالمبرات أمسدت طيب نفسي كي أميل لها واولت ميل قلبي بالله من ميل لغير رضا ومن صدودي عما سن أو فرضا بسم الإله الذي القرآن قد نزل من حب ابتدائي وأرجو عنده النزل الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arsida saddid lisani nawwir janani safi amani wasil bara'i assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi noo ngi sant suñu borom tabaraka wa taala ni mu yellee ci jëmmam ji te as njaamam lott ci lool di julli tey sëlmal ci sayidul kawnayni wa thaqalayni wal fariqayni min urbin wa min ajami sallallahu taala alayhi wa sallam ñoo ngi julli tey sëlmal ci sang ñaari way ndijji bopp yi te mooy nit ak jinne kooku mooy kan sang bi nga xam ne moom la yàlla yónni woon ci xeet wi nga xam ni moom la yàlla wax ni mooy xeet wi gën ci xeet yi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas mooy xeetu sayduna muhammadin alayhi salaatu wassalaam di ñaan jàmbi yàlla ak xéewalam yàlla na yàlla tasaare ko ci moom alayhi salaatu ak mboolem ay ñañam ak ay saxaabaam ak mboolem ña ko toppoon ak ña leen toppoon di yeesal suñu pas-pas ak suñu jaayante ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul Euh, di yëkkati nuyoo akub ziyaara boo xam ne mooy nuyoo jullit bi nga xam ne moom la ñu yàlla jox te moom la aljanna di nuyoo ëllëg bu ñu dajee ñun bu ñu dajee aljanna nuyoo boobu la ñuy nuyoo nuyoo boobu moo tàmbalee ci jàmm te jeexee ci barke te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. suñu nuyoo yooyu ak suñu ziyaara yooyu ñoo ngi ciy jiital borom ngëneel ak cheikh Mouhamadul Muntaqa ni cheikh Mouhamadul Bachir. di ko ñaanal yàlla dolli ko dëgëral yàlla yokk aw fanam bàyyi kook am xelam ba mottali mboolem naal yi nga xam ne am na yéen liggéeyal ko umma islami bi yëpp waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy jox xalifa bu tedd ba fa tiwaawoon a Seex Aboubacar Sy Mansour ñi nga xam ne moo amee jataay bu xadra malikiya di ko ñaanal sunu borom moom it yàggal ko sunu borom wéral ko sunu borom dolli ko kàttan ba mottali mboolem naal yëpp nuyo boobu ak ziyaara boobu it moom la ñuy ñaanal Baye Cheikh Ahmed Tidiane ñas mi nga xam ne mooy xalifa Maam Abdoulahi ñas waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy ñaanal Baye Cheikh Mahi Niass mi nga xam ne moo amee jataay Cheikh Ibrahim Niass tam bokk ci biir kër Maam Abdoulahi Niass waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy jox Baye Assane Seck ca Canaba waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy nuyoo a Cheikh Bekaay mi nga xam ne moo amee jataay Maam Sidi Muxtaar Kunta waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñu jox maam Thierno Basir mi nga xam ne moo amee jotaay maam Cheikh Omar Fouti waaye nuyo boobu ak ziyaara boobu moom la ñu jox umma islami bi nga xam ne ñooy topp seen télé bi nga xam ne mooy réew mi TV rawatina seen émission bi ñuy wax keppaaru mag ñi ngeen baaxoo koo am dimanche bu jot di ci baaxoo ànd ak seen mbokko Serigne Bara Mbacké seen émission keppaaru mag ñi nag di émission bi nga xam ne. waxtu wu ci ne ci la ñuy suñuy mag mag yi diine ji nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wala boog ñoo taawu lislaam ji mu jugee ci mag mu jugee ci seeni maam jaar ca maam yooyee jaar ca maam yooyee ba dem ca taabia ya ba noonu lay jaari ci saxaaba yi ba jàll ci yonte bi aleyhi salaatu wasalaam ni ma koy waxee toujours rek mooy la yàlla yónni woon sayduna muhammad aleyhi salaatu wasalaam loolu la ko waxoon ne ko jottali ko xeet wi waaye nag bi mu ci bi mission matee moom alayhi salaatu wasalaam daf ne yéen sama xeet nag bay leen seen waar balligu nii walaw aaya mooy li ma yàlla yónni woon man de wàcc na kon nag yéen seen làcc moo ci des seen waar moo ci des mooy li jottali leen ma li ma yàlla yónni woon donte benn aaya la donte benn phrase la donte benn mot la moom alayhi salaatu wasalaam loolu la santoon aw xeetam suñuy maam nag seen waar wi nga xam ne bay nañ ko ci tamu rafet lool te set lool looloo tax ñoom ñu di leen fàttaliku seenu doxin seenu njàngalin waaye seen liggéey bu rëy boo xamante ni liggéey nañ ko ci lislaam kenn ci ñooñu tey insha allahu taala danañ nafar lenn ci ak dundam waaye nag li nga xam ne jaayoon na ko suñu borom te suñu borom euh, nangu njëg nangu njaay la te fay ko ci njëg goo xamante ni suñu borom dootu ko xàccee xàccati ba yowmal xiyaamatul akbar kooku mooy kan mooy Cheikh Sidy Mokhtar maam Cheikh Anta Gaawaan xam naa ni danañ ci dikk léegi waaye lu jiitu loolu ñu ndokkeel a Cheikh Mouhamadul Muntaqa ci luñ koy ndokkeel mooy bis yi nga xam ne émission bi weesu rek maa ngi ciy waxtaan ci liggéey bu rëy bi nga xam ne sumbul na koo liggéeyal lislaam gis nga émission bi weesu maa ngi koy wax ne Cheikh Mouhamadul Muntaqa li nga xam ne moom la santaane yàllaa ko santaani tabaraka wa taala waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko digle waaye Serigne Touba Xaadimu Rasuul moo ñu ko joxañ nañu lii mooy mbir mi wax naa ko keroog wa lastu laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu lilahu afdalu ma nataqahu lisaanu fa kullu man ankarahu wa afdalu ma nataqahu man yadkuru fa kullu man ankarahu fa yaxsaru Serigne Touba nee na baatub laa ilaha illa allahu rasulullahi sallallahu alayhi wa mooy li gën ci nit ki di sikkaree ku jug bëgg a sikkar tànnal baat yi mooy laa ilaha illa allah muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa fa kullu man ankarahu nag fa yaxsaru nee na wax nag képp ku ko weddi insha allahu taala boo dajeeg sa boroom da nga perte fa kullu man ankarahu fa yaxsaru mooy li sëñ Muntaxa mooy bis boo xam ne bisub zikkar zikra la tudd laa ilaha illa allah baat yooyu muy muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam waaye nag julli ci yonent bi alayhi moo xam ci ay qasaid la moo xam it sikkar ci ay kaamili alquran yoo xamante ni xam ngeen ne alquran waxi yàlla la te jàng ko zikkar la moo looloo tax Cheikh Mouhamadul Muntaka ñaari bis yi nga xam ne moom la wootee muy bi njëkk ak bisam bu mujj bii bu mu ci mën a doon rek da xam ne cëslaayam lépp ci lislaam la dellu moo tax gis nga bërki démb bi muy yeewee muy ci àjjuma ji ndeysaan baarakallah yal na yàlla dolli guddal fanam te dolli ko sàmm dégg nga kàddu yi mu wax kàddu yu am solo am solo am solo la Cheikh Mouhamadul Mountakha wax dafa wax ne xanaa woote gii ma ko wootee ñu dajee fii tuubaa di ko fi defee si ma joxe woon ndigal ne ku sori mën nga koo defee fa nga nekk joxe gi ma joxe ndigal dañ koy dañ koy barkeeloo rek waaye dañ koo war di def wird laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah saa sallam nee na daje gi ñu dajee dacee soññee rek ngir ñu ngir bis boobu ñu fàttaliku ko ci waaye nag dafa war a doon suñu wird dafa war a doon suñu wird mooy kon bépp jullit foo mën a nekk wala bépp taalibe boo ma foo mën a nekk koo xam ne sëñ tubaa ngay yaakaar koo xam ne diggalu seex muhammadul muntaxaa ngay déglu jàppal ne seex muhammadul muntaxaa jox na la wirdu laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah moo tax daf ne dégg nga ni mu wax mooy lii kat bis bi dañ koo wootee ngir lan ngir fàttalente waaye ngir barkeeloo ko ci waaye nag dañ koo war di def werd dañ koo war a def werd wird nag mooy nit ki lim tax koo bis bu yàlla sàkk mu di ko def tey boo demee ci Euh, tariqa Cheikh Ahmad Tidiane yi bokk na ci ay shuruutam mooy da ngay wasifa wasifa googu werd la mooy yow mi nga xam ne da ngaa jël da ngaa jël wird maanaam da jël wird daa ay ay lawazim yoo xamante ni daa am lawazim yoo xam ne da nga koo war di def da ngaa war di teewe xadra jumaa loolu mooy werd mooy nit ki dog bi nga xam ne daf koo sas sasoo ne insha allahu taala lii bis bu yàlla sàkk danaa ko def ngir lan jaamoo ko yàlla tabaraka wa taala comme ni nga xam ne aalimul allaama jooji a Cheikh Mouhamad Diarra ni mu defee woon wirdam guddi gu jot téeméeri rakka yoo xam ne ak kaamilu alquran la koy séddalee nga xam ne daanaka juróom-ñaar fukki juróom-ñaar yi mu dund boo ci génnee ñaar fukki at yi nga xam ne ci jàng la toll daanaka juróom fukki at ak juróom juróom yoo xam ne wala juróom fukki ñeent jàpp juróom juróom-ñaar juróom la dund juróom juróom fukki at ak yoo xam ne guddi gu jot naafile na ci kaamilu alquran waaye nag séddalee ko téeméeri rakka loolu mooy werd kon Cheikh Mouhamadul Mountakha nee na lii mu digle nii dafa woote ngir ñu defee ko fi ngir lan mu fàttali ko julli di lii lu ñu war di def la waaye nag dañ koo war a def werd mooy dañoo war fu ñu toll ñuy jàng baat yooyu muy laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngir la jaamoo ko yàlla tabaraka wa waaye ma occasion ci it waxaale ma def ma jaaree ci waxaale ni it képp koo xam ne dangaa toog fa nga toog di jàppee ne lu Mouhamadul Mountakha mii mooy ki nga xam ne day bokkaale yàlla wala moom mooy ki nga xam ne day wax loo xam ne dafay salfaañi dara ci wormay suñu borom tabaaraka wa taala nax nga sa bopp. ndax kat mbokk yi ku tegul suñu borom palaasam ku xamut suñu borom wàccuwaay bi mu am doo woote bisub zikkër donte sax léeg-léeg am ñoo xam ne dañ ne loolu bi daala looy wootee ab bis ngir zikkar déedéet waaye dégg lim wax daf ne dama koo fàttalee. waaye dañ koo war di def wird mooy ab jullit kon fu mu mën a toll war nay teewlu ci xolam di wax baat yi muy laa ilaha illa lan lay firi mooy amul benn buur boo xam ne danañ ko jaamu jaamu ga dëggu jariñ ñàkk gaa jaamu du dëgg te lor amul benn buur boo xam ne danañ ko jaamu jaamu ga wér di ñu jariñ ñàkk gaa jaamu du dëgg te di ñu lor moom Cheikh Mouhamadou Mountakha baat yii la waxlu kon képp kuy woote tawxiid ñu ne la kii mooy Cheikh Mouhamadul Muntaqa booy woote tawxiid wala ngay wax waxi sunna boole ci kii te xam ne kii kat sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi woon fi muy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kii kat fu mu toll moom ci lay bay waaram ko soññee kon ñoo ngi ko ciy ndokkeel bu baax a baax a baax di ko ñaanal sunu borom it dolli koo dëgëral dolli ko kàttanal ndax am kilifa gu mat kilifa dafa am solo kilifa goo xam ne waxtu wu ci ne lim day fàttali mooy lu lay jëmee ci borom bi tabaraka wa taala waaye lu fàttali sa borom tabaraka wa taala waaye xoolal liñ ci boole mooy ñii dañuy taxaw di sikkar di tudd baatub yàlla bi tabaraka wa taala waaye ñii di def ay xéewal di leen jox te ñaar yooyu benn génn ci jaamu yàlla tabaraka wa taala ndax kat xam ngeen ne yonent bi aleyhi salaatu wa nee na jullit bu xiif nga jël benn mbiskit jox ko ko mu seex ko moo gën nga tabax junni jumaa tabax junniy jumaa fekk benn jullit bu xiif nga tibb benn tibb jox ko mu lekk wala nga yëkkati benn biscuit jox ko ko mu seex ko lekk ko moo gën nga tabax junniy jumaa am na ku ma sa dikk ci moom moom alayhi salaatu wasalaam ne ko kat diw sàngam di ni ma yéeme mu ne ko lu mu def mu ne ko moom daal jàkka ci la dëkk moom liggéey defut dara moom daal bis bu saa yoo dikkee ci jàkka ji nga koy fekk fa lay yendu fa lay fanaan moom jaamu yàlla rek lay def day kàbbar ak a sëlmal ak a dëkkee woo koor alayhi salaatu wasalaam daf koo laaj ku ko yoral këram xanaa amu xanaa amuti soxna xanaa amutu njaboot xanaa amut kër mu ne ko ah kay mu ne ko kan moo ko yoral këram waa ji ne ko ah wax dëgg yàlla man mii de maa koy joxeel dépense alayhi salaatu wasalaam ne ko yaa ko gën de yaa ko ëpp cër fa sa borom tabaraka wa taala kon gis nga yooyu Cheikh Mouhamadul taxa indication yooyu mu joxe yépp njariñ la yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla na son borom tabaraka wa taala doolee guddal aw fanam ba yée lii nga xam ne waxtu wu ci nekk mi ngi koy taxawee ci lislaam ji waaye di ko taxawee it ci fàttali taalibe yi waaye di ko fa taxawee it ci nos nosug murid yi yal na yàlla taxaw ko ba mottali ko incha allahu taala ni mu ko bëggee kon ñoo duñ deñ mukk di ko ndokkeel waaye duñ deñ mukk yi di ñaan yàgg koo fekke te yàgg koo ànd ak moom waaye xam ngeen ne ci istuwaaru yoonu murid ni muy doxee xam ngeen ne Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasul mii nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Muntaka wuutu Cheikh Ahmad Bamba boo demee ci Irwaawu Nadim wala nga dem ci Minadul Baaxil Xadim Irwaawu Nadim ak Cheikh Mouhamad Lamine Diop ak Dagana moom moo ko taalif ci jaari jaari Cheikhul Xadim radiyallahu anhu Minadul Baaxil Xadim Cheikh Ahmad Basir moo ko taalif doomi Sëñ Tuubaa la ñaar ñi kum ci mën a doon war nga mën a wax ci sëriñ bi. parce que Cheikh Mouhamed Lamine Diop Dagana bokk na ci ñi gënoon a jege sëriñ bi ci njaareem Cheikh Mouhamed Lamine Diop Dagana bind na ne sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bi mu nekkee ci géej gi bi mu nekkee Mayumba ñeenti bantam yooyu mu jë jëloon samp ko def ko jàkka tubaab bi dikk sempi jàkka ji sànni bant ya def ko wanag bàyyi yëlli sëy mi nga xam ne moo ko fekkee woon nga xam ne ab sénégalais la woon boo xam ne dañ koy yóbbu woon foofa ngir mu liggéeyi fa bàyyiri sëy ma ko yëgoon doon jàppante ak tubaab bi Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana nettali na ni bi yàlla dogalee sëñ Tuubaa ñibbi si Sénégal ba dem gànnaar ba ñibbi si waat ba nekk njaareem 1918 bañ ubbi jumaay njaareem bàyyili sëy fekk booba jógee na Gabon ba ñibbi si Sénégal moom it maanaam mission jeex na ba ñibbi si ñëw na njaareem siyaari si sëñ Tuubaa Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana nee na bi mu dikkee moom Baye Yelli Sey moom sëñ Mouhamed Lamine Diop ne nee na moom la ko sëñ Touba booleel ne ko àndal moom mu dem visiter sama jumaa ji ci buntu kër gi ba xam nu mu def ak sama ñeenti bant yama sankoon ngir bëgg koo def jàkka tubaab bi dindi ko def ko waral kon kooku war naa mën a wax ci sëriñ bi Cheikh ba Bassir it doomi sëñ Touba la joo xam ne ci njabootuk sëriñ bi ñi ci xam mooy ki ci gën a taxoo woon ak sëriñ bi ndax moom moo féete woo ak sëriñ bi yu baree baree bari ci ay soxla yu sëñ bi daan doxlu moom moo ko ko daan doxal kon kooka it war naa mën a bind ci sëriñ bi ñoom ci liñ bind mooy sëriñ Touba bi fii baayam sëñ Mbàkke Maam Mor Anta Sali di nekk moom sëriñ Touba mësta jéem a taxawal dara mësta taxaw mësta taxawal mësta am soxla ci lu dul way juróom yi moo tax sëriñ gaawaan nii nga xam ne moom lañuy waxtaan waxtaani muy maam Cheikh Anta borom gaawaan te gën a siiw ci boroom dërëm ak ngërëm Sidil Muxtaar la tudd mi ngi feeñee àdduna ci poroxaan ci atum 1865 waaye bi muy feeñ bi muy gane àdduna mi ngi fekk a Seex Ahmad Bamba radiyallahu anhu moo nekkoon ak way juróom wu góor nga xam ne moom maam Seex Anta borom gaawan mook maam borom Daaru Muxti diir bu gàtt lañu magante donte borom Daaru Muxti moo ko magee ñaari at waaye maam Seex Anta borom gaawan kan mooy way juróom mooy soxna Anta Njaay Mbàkke damay wax ni toujours histoire yoonu murit dañoo war di waxtaani soxna Anta Ndiaye ngir lan ngir rôle yi nga xam ne daf ko suyee ci yoonu murit maanaam rôle yi nga xam ne daf koo suyee ci sëriñ bi suyee tàmbalee ko ci soxna jaara ba ci Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul mii ba tey jii ñun ñu mën a jariñu ci moom yooyu lu ci ne war naa tax moom soxna Anta Ndiaye Mbàkke ñu di ko waxtaane xam ngeen ne histoire ñettali waata gut soxna su jug dem di wutali sa boroom kër soxna maanaam dem di doxi sa wujj dem di laba di ngoro ji sa wujj yaakaar naa ni histoire nettali waatut ku ko def mennum soxnaanta la ci histoire ma nettali koo xam ne moo dem ba gis ne boroom këram war naa dolli soxna moom mu dem doxi ko mu dem tànnal ko dox ko ba dikk ci biir kër gi mu ànd ak moom di liggéeyal yàlla mennum soxnaanta njaay la histoire ma sa nettali ci ku ko def ndax lan moo ne Soxna Anta Ndiaye moom li ko indi kër Maam Mor Anta Sali loolu it doy nañu di ko jàngale ci histoire yoonu murit ndax damay wax de Soxna Anta Ndiaye Ibrahima Awa Ñang a ko jur Ibrahima Awa Ñang maam Maharam ko jur maam maam Maharam moom yi moo caatloo maam Balla Aysa maam Balla Aysa jur maam Mor Anta Sali kon Ibrahima Awa Ñang mooy magi maam Balla Aysa kan mooy Ibrahima Awa Ñang mooy mam maharam bi mu ñëwee mbàkki ba buur bi amari ndeela mayoon ko dëkk boobu ñuy wax mbàkki xew mbàkke bawal ca xew-xew ba amoon xam ngeen ne dafa am góor guñ daan wax mam ma laamin saar dëkkoon caarin jama mam ma laamin saar mook mam maharam ñoo bokkoon di jàng ci góor gu ñuy wax mam ma sàmba caam maam Masamba Thiam mooy maami eh, alhaaji Iyaan Thiam yal na yàlla eh, yërëm ko eh, yàlla yàlla dolli ko yërmandi ak njéggal alhaaji Iyaan Thiam mi nga xam ne moom lañ xamoon ci fii Sénégal maam Masamba Thiam moo leen jàngal moo jàngal maam Maharam moo jàngal maam Lamine Sarr moo jàngal it sëñ cok sëñ kokki maam Lamine Sarr ñibbi si bawal fi ñuy wax caarin jama yàlla dogal moo buur bi nag ñu jege yante xam naa ni umpulante am seen diggante ndax bu njëkk buur day fiir bu ko ab sëriñ jegee yor mbooloo neex a dëkkal yi am na ci nu ñu communication bu ñuy doxal seen diggante day jur ak noonoo xam ngeen ni ñoonoo googu moo doxoon diggante siñ tubaab ak tubaab bi ba tax ñu yóbbu ko ci géej gi waaye maam Malamine Sarr dañ koo jaxasee ak buur bi ba buur bi ko ci ne képp ku ma reyal Malamine Sarr danaa la far fala danaa la fal farabu bu kaba ki nga xam ne moo rey Mame Lamine Sarr at am na ko fa daa dikk ne Mame Lamine dama laa gis ngay nitu yàlla ma bëgg a wut yàlla ci yow dama laa bëggoon a tarbiyewu Mame Lamine Sarr ne ko bismillah dëkkal ko këram def ko ni ay dongam ndekete moom li muy nekk ci biir kër gi lépp moom ndawal buur la loo xam ne leen rekk ko yitteel mooy rey Mame Lamine bi mu fa defee at maam Malamine Sarr jaar ci ginnaaw tookoor bi ca toolu ñambim ba fa la ko kooka tëroo ba rey ko fa bi mu ko reyee moom moom yi ci lañ ko far fara fi lañ ko fal fara kaba ci la mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci réew mi nag daal ne nekkam seen bokkum daara buur bi daf koo rey ñoom dañuy woote jihaad ngir jëflante ak moom biñ ko waxee maam maaram fekk maam maaram moom booba mi ngi eh, fi ñu wax ngay si nga mi ngi wax mi ngi nekk fi ñuy wax ngay siña ci côté Jolof biñ ko waxee ma mam maharam bekk mi ngi Mbàkke Jolof afon mi ngi Mbàkke Jolof mam balay sa moo dëkkoon ngay si nga mam maharam booba mi ngi Mbàkke Jolof ci leen wax ne man kat gisuma jihaad waaye koñ rey mbokkam mu bëgg a fayu ji laa gis ci lañ wax ne mam maharam mii daal daa nanguwut a dem kon ñoom ñi àndoon dikk songu si buur bi buur bi dafa rey ñii jàpp ñi ñam ca jotoon a jàpp nag bañ demee ba ca diwén sa la maam maaram jóge Mbàkke Jolof ñëw ne day jaale si maam Malaamin Saar ndax mbokkum daaraam la ci la dikk jaale ko ba noppi nag sàkku gis buur bi buur bi jox ko rendez-vous ca xuur wa ñuy wax guy ñetti sér foofee la dajeeg buur bi buur bi waxtaan ak moom ne ko tax a jug mu ne damaa dikkoon ngir jaalil si sa mbokk mam mbokk mi ñuy wax Maam Malaamin Saar waaye nag damaa dikkoon it ngir tinu si mbokk yi daara yi nga xam ne dañoo dikkoon doon jëflante ak yow nga jàpp ñi rey ñii waxtaan wa waxtaan ak moom ak xel mu rafet ma moo tax buur bi ne ko yow su ma la teeloon a gis du ma jàpp benn sëriñ daal di ne ko damaa sàkku ci nag boo ko manee ma daggal la fii ab dëkk nga dëkk fi ci la ko wax ne ko am naa ngànt mënuma fee dëkk ndax booba mammaaram mage na waaye Ahmadou Farimata moom mën naa ko fee dëkkal muy ab taawam xam ngeen ni Ahmadou Farima Farimata Farimata Seck ko jur Ahmadou Farimata ak Thierno Farimata it ñoo bokk ndey ak baay Thierno Fatima Farimata it moo jur maam Mati Mbacke mi jur maam Ousmane si moo jur maam Seydi Hadji Malick ah Thierno Farimata moomu it moo jur maam xari Mbacke Xëri Mbacke moo jur Ngañ Xëri Mbacke Ngañ Xëri Mbacke moo jur soxna Sofiatu Ñang mi jur Alaaji Abdou Aziz moom teewaawoon Alaaji Abdou Aziz si ak dabaax ak dabaax yi kon ñooñu ay seeti maaram lañ maam maaram mii may waxtaanee mooy mu xam man mu aram ñang moom lañ mayoon dëkk boobu ñuy wax Mbàkke waaye maam maaram moomu moo jur Ibrahima awa ñang mii may wax nga xam ne Ahmadou Farimata bi mu ko dëkkalee Mbàkke fanweeri at la ko moom yàlla dogal mu faatu ci nekkuk baayam baayam yabal fa ku ñuy wax Ibrahima awa ñang moo jur maam Anta Ndiaye Mbàkke mii may waxtaanee maam Anta Ndiaye Mbàkke Ibrahima aw ñang mi ko jur moom moom Mbàkke moom it at moom it yàlla dogal mu faatu ñu indi fa man Balla Aysa mi nga xam ne moo jur mam Mor Anta Sali gis nga kon seen ma seen baay yi seen maam yi niñ tegaloo ak niñ bokkee nga xam ne baay maam mm, Anta Njaay Mbàkke moom moom Mbàkke faatu ñu indi fa mam Balla Aysa baay yi mam Anta waaye mam mam Ibrahima mam Anta Njaay Mbàkke mi may wax nii daa doonoon jigéenu mam Mor Anta Sali yàlla dogal mam Mor Anta Sali doyloo ko lool ba yàlla dogalee maam Mor Anta war a samp kër ndax xam ngeen ni booba mag ñi ñoom ay sëñ daara lañ jàngalee alxuraan rek lañ xamoon te booba it réew mi li fi xew mooy ab sëñ daara moom lii la am mooy su nawet jotee mu ànd ak dongo yi dem ci tool yi lam cay jëlee moom lay def cim sàqam soxla su mu am ci ci loola la koy fajee su su sàqam a jeexee te nawet ñëwagut day toog xaar yàlla. looloo tax booba caay jamono bu njëkk barki dem rek maa ngi dégg sama mbokk sëñ Xaadim Njaay Rasiid maa ngi koy ziyaara bu baax a baax di ñaan yàlla dëgëral ko euh, ci ñi liggéeyal alxuraan la bokk maa ngi dégg bërki dem rek mu di ko wax naan bu njëkk ab sëñ daara boo xam ne ab jàngalekatu alxuraan la ku mu bëgg sa doom nga dàq ko moom daal dañuy xool ki nga xam ne lamb na fi moom ñuul na ñaaw na gàtt na ñuul na ñaaw na gàtt na te ay moroomam yépp dem nañ moom toll na ci as boo xam ne jàpp nañ ni kenn dootu ko bëggati ñu ne nañ koy tey ñu koo jël jox ko suñ daara bi ba xam ndax dana ci mën a liggéeyal yàlla waaye ki nga xam ne moom moo toll ci jamonoom ñëpp di ko bëgg kenn du ne nañ ko jox suñ daara bi addiya ca jamono jooja loola moo li mooy li amoon nga xam ne Maam Anta Sali mii nga xam ne muy wajuru Sëñ Tuubaa waxal maanaam bëgg na soxna ba waxtaan ak bokki ñooña ba ñooñe ba déggoo ci ne incha allahu taala bi sàngam dañ koy may soxna ba mu séddee ko maam Anta Ndiaye Mbacke mi nga xam ne maam Anta Ndiaye Mbacke mooy ki waroon a wàcceel maam Mor Anta Sali histoire bu doy war lay nettali biñ demee ba ca bisu wàcce ga yàlla dogal ki nga xam ne moom lañ waroon a yit maam Mor Anta Sali lii xew ci jamono xew ca maanaam mu am ngànt ba mënut a ñëw nga xam ne maam Anta Ndiaye loolu méttit woowu méttitu xol woowu maanaam mam moor anta yaakaaram ji nar a tas moo tax mu sàkku ci bokk yi ne ndax man dama koo araam ñu ne ko déedéet araamuñu mu ne ko kon tee ngeen maa muur ma wàcc ngir yaakaaram bañ a tas kii woy juru maam Seex Anta kon maam Seex Anta nga xam ne moom lañuy moom lay wax muy boroom dërëm ak ngërëm woy juróom da koo fàggul maanaam woy juróom mooy ki waroon a wàcceel baayam soxna la cay xew xew ca mu laaj ndax dama ko war a araam wala déet ñu mu ne leen déedéet ñu ne ko déedéet mu ne ko nañ ma fas taw waral ma ma wàcc ci néegu Mamour Anta Sali moo gën mukk yaakaaram di tas tey jii lii moo ko indi kër Mamour Anta Sali te Mamour Anta Sali bi mu demee ba war dolliwaat beneen soxna moom maam maam Anta Ndiaye Mbacke mii moom moo dem jëli doom yi maam Asta Waalo maam Asta Waalo maam Anta Ndiaye ay doom yu bàyyi ndax maam Asta Waalo Ahmadou soxna bu soo ko jur Amadou Soxna Bousso doomi maaram la Mame Anta Ndiaye Ibrahima Awa doomi maaram la moo dem jëlim doomi doo maanaam doomi baayam la jël doomam andi ko ci këram ñoom ñaar ñu bokk benn borom kër looloo tax nga dégg waykat bi dawaa naxal looloo waral sëriñ gaawaan di rekki bàmbay jaamam jaam zahir la moo waral mu dib xaadam moo waral di rekki bàmba te dib jaamam ndax moom jaam zahir la waaye jaam batin la moo waral mu dib xaadam nga xam ne kii mooy way juróom wu jigéen maam Anta Ndiaye maa ngi koy wax ne boo demee Daaru Salaam da nga fay fegg turu soxna yekkale sëñ Moodu maamu am na doomam ju fi nekk ju ñuy wax soxna yekkale Mbàkke soxna yekkale tur wi turu maam Anta Ndiaye Mbàkke la nga xam ne ca jamonoy soxna jaara lañ ko daan wooyee turu soxna yekkale ngir mën a yekkale kii mooy way juróom am wu jigéen way juróom wu góor nag sëñ Mbàkke Mor Anta Sali moom gani ani taarif la mooy way juru Cheikhul di bi mu gënee àdduna sëñ Mbàkke Mor Anta Sali moo ko jàngal ak magam Mam Mor Jaara borom saam damay wax ne boo gisee li tax sëñ gaawaan bëggoon borom saam mooy yàlla dafa dogal dañoo bokk baay ba noppi bokk ndey borom saam yar ko jàngal ko dañoo bokk baay ndax ñoo bokk benn baay genn géño waaye ñoo bokk ndey ndax seen ñaari way jur yi maanaam wayjuru sëñ gaawaan way yaay la ci juru borom saam waaye wayjuru sëñ gaawaan it maanaam yaay la ci borom saam nga xam ne soxna Anta Ndiaye moom maam la ci Cheikhul yi waaye bàjjanam la maam la ci borom saam waaye bàjjanam la nga xam ne seen doomi nijaay yi doomi la waykat ba waxoon suñ fàllu nday jaa di baayam ci wàllu askan baayam ay ndeyam moo dondu baatin ba ak saahir sa billaahi loolu mooy li valable ci maam si xanta borom gaawan nga xam ne borom saama ko yar borom saama ko jàngal lax dari yóg risaala waaye borom saa bàyyee ma ko jàngal alquran waaye borom saa ma ko jàngal xam-xam wax nañu ni téere bi gën a siiw ñu koy wax laxdari ak risaala ñaar yi borom saa ma ko ko jàngal ak yeneen i téere yu bëree baree baree baree bëri looloo tax sëñ gaawaan bëggoon ko ba tuddee na ko ñeenti doom da koo tuddee doom mu wàcc liggéey mu faatu mu tuddee waat ko mu faatu mu tuddee waat ko mu faatu ñeenteel bi dafa jàpp ci loxoom yóbbu ko ci sëñ tubaa ne ko damaa am cofeel ci borom saam loolu te ku ma ko tuddee mu dem sëñ tubaa ñaan tibli ca bopp ba ne ko incha allahu taala dana fi toog bay yow muy sëñ saam moom maam seexanta toog na fi ba wuutu maam borom gaawaan nga xam ne borom gaawaan ñii nga xam ne moom lay wax lan moo tax lan la ko sëñ tubaa defal mooy ah sëñ gaawaan nii moo doon rakki sëñ tubaab ji ab jaamam bokk na ci qualité maanaam qualité yiñ mën a waxtaanee ci moom ci ay jikkoom bi ci jiitu mooy moom jaamu yàlla la woon tabaaraka wa taala waaye jaamu yàlla boo xam ne bu ñemee responsabilité nag ñemee responsabilité moo tax gis nga lii may wax nii ab leetar la boo xam ne moom sëñ gaawaan moo ko bind sëñ gaawaan moo bind ni assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wa innahu min siidil muxtaar wa innahu lii naka lii maanaam leetar bi ci siidil muxtaar la bàyyi ko waaye nag ila ahlihi jëm ci kan ak njabootam njaboot day doon njabootu xol day doon it njabootu deret ndax ilaa ahlihi la wax umuman wa suusan mooy ku jàpp ne leetar bi ci yow kese la jëm yow kese yaa ko moom ku jàpp ne yaa ñëpp a ko bokk it yaa ko bokk ilaa ahlihi umuman waaye wa xusuusan nga xam ne leetar bi li ci gën a yéeme mooy niveau arabe niveau arabe bi nga xam ne moom la ci jëfandikoo ndax xam ngeen ni ab leetar ab lettre maanaam taxriir bokk na ci li gën a jafe ci luga arab yi daanaka mooy luga arab yi parce que bu doon ci français da nga naan orthographe mooy li gën a jafe ndax gis nga day grammaire bi da ciy feeñ constitution bi da ciy feeñ ak yeneen ak yeneen mboolem yi nga xam ne texte bi boo ko tegoon doon ko analyser yi muy yi muy làmbool ci ay maana day am solo loolu da xam ne niveau arabam kawe na wa indahu gis nga tawkiid gi mu njëkk a jëfandikoo inna arfu tawkiidin wa nasbin inna wa innahu min sayidi almuxtaar ila ahlihi waaye umuman wa xusuusan lu mu ci deg salaamun tusayiuhu nasiha am nuyoo la boo xam ne day am day am accompagnement day am lu koy accompagner lan moo koy accompagner mooy ay conseil salaamun tusayihuhu nasiha maanaam am nuyoo la boo xam ne ay conseil moo koy accompagner fal mujib gis nga gis nga lim indiwaat mu ne salaamun tusayihuhu nasiha nuqta point daal ne fal mujib li waral maanaam li sabab leetar bi mooy ilaamukum bi anni ma amartukum wala amurukum illa bi taqwallahi alazim laa ilaha illa allah xoolal waxin wi mu ne li waral leetar bi mooy dama leenoo bëgg a informer ne dama maanaam leetar bi ñan la koy wax mooy ak njabootam njabootam ñii ay doomi boppam lañ ñii ay sëtam lañ ñii ay dongaam lañ ñii njabootuk ruux lañ ñii njabootuk deret lañ kon ñi ay xoroba lañ ñi njabootu ruux lañ kon bu ne li ma leen li ma leen di déclaré mooy yéen sama njaboot moo xam njabootu xol la moo xam njabootu géño la maa ngi leen di déclaré ne maa ngi leen di informé ne bi an nii maa amartukum mosuma leenoo digal wala amurukum te duma leen mas a digal illa bi taqwallahi al azim lu dul ragal yàlla waaye la suñu boroom digle woon ci alquran moom mooy li mu digle lii sëñ gaawaan a ko wax de te maa ngi fàttali ne gis nga sëñ gaawaan nii moom la sëñ Tuubaa waxoon ne mook borom saam dañuy di sama safaan ca ndax ñoom kat maanaam nu gën a xéewoo ci ñoom seen bakkan nuñ gën a mën a jotee seen bakkan noona la ñuy gën a mën a àggee ci yàlla tabaraka wa taala xam ngeen suñu borom dafa dafa xëriñ am na ci ñoo xam ne suñu borom daa am ñoo xam ne lim leen jagleel mooy nu seen nuñ gën a mën a jotee seen bakkan noona lañuy gën a jegee yàlla tabaraka wa taala am ñoo xam ne lu seenum nattu gën a rëy ñuy gën a jege seen borom sëñ tubaa daf ne woon sëñ gaawaan ni mook borom saam dañuy di sama safaan ci weetuk yàlla ndax ñoom kat yàlla lim leen defal mooy luñ gën a jot seen bakkan gën a jege yàlla man nag lu samay nattu gën a rëy ma gën a jegee sama borom tabaraka wa taala moo ne sëñ gaawaan mi sëñ tubaa waxoon loolu moom moo wax lii mooy responsabilité moom lim ci lim war a jël jël na ko mooy li sabab leetar bii mooy yéen jaboot gi maa ngi leen di xamal ni mosumaa digle te duma mas a digle lu dul ragal yàlla mosumaa digle te duma mas a digle lu dul yàlla ragal yàlla tabaraka wa taala wa taati ma faradahul lahu alaykum ka salaati wa sawmu ramadan wa iqtifaa'i sunnati nabii sallallahu alayhi wa sallam laa ilaha illallah mooy ndekete ñi Sëñ Tuubaa yar fa Sëñ Tuubaa tegoon seen tànkam moom fa la teg tànkam fa lañ teg seen tànk ndax it xam ngeen ne mas naa dégg am na mag mu ma waxoon ne ma luñ ne la sëñ tubaa ko wax mu neex jàppal ne sëñ tubaa waxu ko ndax kat waxi sëñ tubaa du neex te du juyoog ndigalul suñu borom tabaraka wa taala waxi sëñ tubaa du neex te du sedd seexanta maam seexanta borom gaawaan moom lii la waxoon mooy maa leen di digal musuma leen duma leen masa digal musuma leenoo digal te duma leen masa digal lu dul ragal yàlla waaye nag ak topp yonent bi ali ak topp farata yi nga xam ne moom la leen seen borom tabaraka wa taala digal lu mel ni julli ak woor ak lan ak xeeñtu sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam waqtifaau sunnati nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam xoolal lim ci dégg wa man faala hada wa man faala gayra hada aw qaala fal furuuda awi sunna faqad tabarratu minhu zahiran wa batinan nee na ku def lu wuuteeg lii ma wax wa man faala gayra hada mooy ku def lu dul lii wala nga juyóog aw xaalafa aw xaalafa alfuruuda awi sunna wala nga juyóog farata yàlla yi tabaraka wa taala mbaa sax nga juyóog sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamal ne génn nga ci man taman génn naa ci yow ci zaahir ak ci baatin na mooy su fekkoonte ni donte maa la jur donte sama koka la jur saa yoo fi bàyyee li yàlla farataal bàyyi fi li yonent bi aleyhi salaatu wa salaam saa yoo leen fi bàyyee bàyyi boo nga bàyyi ma ta xam ne boo ma bàyyi wutit man banaa la faqad tabarra'tu minhu zaahiran wa baatinan sañ gaawaa wax loolu de boroom gaawaan Cheikh Anta borom dërëm dërëm ak ngërëm mais moo bind leetar bii boo xoolee leetar bi ba ci mujj gi moom ab adresse am da ci da koo adressé boppam moom moo ko bind moo ci def adresse bi wane ne Cheikh Anta borom gaawaan moo ko Cheikh Anta Mbàkke moo ko bind daf ne ku fi bàyyi farata bàyyi fi sunna boo génnee ci man ak boo génnul ci man xamal ni man génn naa ci yow faqad tabarra'tu minhu seet naa ci yow zaahiran wa baatinan mooy adduna maag yow jotee wuñ fi dara te ëllëg duñ fa gisee faqad tabarra'tu minhu zaahiran wa baatinan al baraa la jëfandikoo baraa la la jëfandikoo da xool kalima bi mu jëfandikoo boo ko joxee maanaa mi day leer ci ne ku ko def man deñ naa ci yow faqad tabarra'tu minhu zahiran wa batinan mooy seet naa ci yow kon mu tekki ne fa in maata walam yatub fala yalumanna illa nafsa bu faatoo tuubu lii mu def bum yedd kudul boppam fa in maata walam yatub fala yalumanna illa nafsa sañ gaawaan nee na ki def lii ki bàyyi farata bàyyi fi sunna bu ko tuubul ba dee wallahi bum yedd kudul boppam ndax man ngi moom jotewuñ dara seet naa ci moom ci àdduna te àllaaxira it buñ fa gisee qaala taala xoolal gis nga bi mu waxee loolu da koo lay taayi waxi suñu borom tabaraka wa taala ndax kat yàlla nee na man amila saalihan képp koo xam ne tibb nga ab tibb bu neex fa li nafsihi yaa koy sàqami wa man asaa ku gàddu saw yet nag fa alayha mu dal ci sa kaw man amila saalihan ku tibb tibb bu neex fa li nafsihi yaa koy sàqami waaye wa man asaa fa alayha wa man asaa ku gàddu saw yet fa alayha mu dal ci sa kaw lii la borom gaawaan yal na yàlla dolli ko gërëm lii la digle woon dal ci teg ne jacaltu hada alkitaaba xujjatan bayni wa baynakum wa bayna allahi tabaraka wa taala daf ne jaaltu hada alkitaba hujjatan bayni wa baynakum wa bayna allahi tabaraka wa taala nee na mbind mii mbind mii ma bind muy lettre bi nga xam ne maa ko bind dama koo bëgg dama bëgg mu doon mu dox sama digg yéen mu doon awlay wu dox sama digg yéen sama njaboot waaye damaa bëgg it mu dox mu doon awlay woo xam ne mooy dox seen diggante ak man <laughs> gis nga wa jaaltu hada alkitaba hujjatan bayni wa baynakum wa bayna allahi taala tabaraka wa taala mooy day doon sama wulay sama digg ak yéen waaye doon seen wulay seen digg man waaye doon sama wulay sama diggante ak yéen ak sama digg ak borom bi tabaraka wa taala mooy ëllëg buñ dajee ca pénjum suñu borom ba tabaraka wa taala su ma ne ana sama njaboot bañ taxaw nii su ma génnee kayit yi suñu borom xam ne wàccoon naa wàccoo woon naa وجعلت هذا الكتاب xujjatan bayni wa baynakum wa bayna allahi tabaraka wa taala mooy suñu dajee ca péncum yàlla ma yéen sama njaboot bu ngeen dikkee taxaw ci sama ginnaaw su ma yëkkatee kayit wi man la yoon la yey naa leen ndax kat nee naa leen man lii laa digle woon ku ko xool te topp ca jàppal ne yaa ngi sama ginnaaw ku ko fi bàyyi nag jàppal ne ci àdduna laa génnee ci yow ëllëg ma xiyaam ñu fay gise kii mooy ki Sëñ Tuubaa defaroon kii mooy ki nga xam ne it mooy borom gaawan ni may waxtaanee nii bi suñ tubaa nekkee ci géej gi ginnaaw yàlla bu suñ tubaa ñibbisee moom ginnaaw dogalub yàlla tabaraka wa taala moom mii moom Seex maam Seex Anta mii suyee na ci rôle bu am solo xam ngeen ne moom mooy ki nga xam ne bi suñ tubaa nekkee Gabon moom mooy defoon ay effort ak effort yi mu def yépp ak lim daj lépp ngir fekki suñ tubaa euh, maam Seex Anta fekki na suñ tubaa Gabon bi mu demee ba nuyook sëñ Tuubaa sëñ bi daf koo wax ne ko seexante naka waar yow ma ñu ne ko mu ne ko ñaa nga di mbàkke xanaa di la namm rek tey yàkkamti lool nga dellu siwaat ba ziyaare mu ne ko waaw seexante mu ne mu ne ko seex mu ne ko mbàkke mu ne ko fii ma nekk de wéet gi ma fi wéet ak man gi ma fi wéetal sama borom mu war a wéetal sama borom ak dëkkaale yi ma fi dëkkaale sama borom tax na neex na ci man neexaay goo xam ne tànn naa tànn naa te sama borom dëppoo na ceeg man ma des fii seex maam seexanta borom gaawan dafa xaaju moo ñaan sëñ Tuubaa ne ko Mbàkke bis boo desee fii tubaab bi dana am ndam ci ñun ndax kat bi mu lay yóbbu ñëpp dañu ne doo dellu si tax nga dellu si ci réew ma rekk ñu di la siyaare rekk mooy suñu dam lii la waxoon sëñ Tuubaa looloo tax sëñ Tuubaa la ko maam seexanta ñaanoo mu ñaanaat ko sama boroom sama borom dëppoo ceeg moom moo waral mu dellu si moo tax bi mu dellusee bi mu dikkee le 11 novembre fii ci waaxi ndakaaru yi bi mu wàccee ci gaal gi ana seex la wax ana seex tubaab bi tëb ne uwee la seex anta uwee seex moom sëñ tubaab bi mu wàccee ci waaxi ndakaaru yi maam seex anta borom gaawaan la wóolu kon kii mooy borom gaawaan lan moo waral ñu naan ko seex tam tudd Sidi Muxtaar mooy bi muy am fukki at ak juróom-ñaar la sëñ tubaa sanc dëkk bii ñuy wax daaru salaam bi sëñ tubaa sancee dëkk bi ñuy wax daaru salaam boroom euh, Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima dégg naa ko ci sëñ som si bu xaadir mu wax ne Cheikh Ibrahima Fall dafa yàggatoo bu sëñ tubaa ci ne ne ko mbàkke seexalal kenn ci sa bokk yii ndax ñeneen ñi ñeewee ko ci ba tax ñu ñëw teel laa wuy si Cheikh Ibrahima Fall yàgg naa wax loolu Sëñ Tuubaa moo tax Sëñ Tuubaa bi mu jógee Mbàkke Kajoor 83 ñëw Mbàkke Bawol 84 85 mu sañ ci gaawaan jógee fa jàll Daaru Salaam 86 87 88 la seexal maam Seex boroom borom gaawaan nga xam ne ñoom Sëñ Fallu ak Seex Muhammadul Moustapha seenu ganee jamono ak seexu maam Seex Anta ñoo tolloo ñoo bokkum at naka la ko seexalee version yi bari na ci waaye li am solo te am solo mooy da ko ñaan gi ko sëñ tubaa ñaanal maanaam moom fi mu fi mu tegoon sëñ tubaa moo tax la ko sëñ tubaa fayee di ko sëñ tubaa ñaanalee lépp da koo fekk lépp da koo yomb bokk na ci rek moom ni mu toppee woon sëñ wax nañu ne eggoon na ci bu sëñ waree ci fas moom mu dikk téye laab ga di ko di ko wommatal am na ci bés mu def ko ci mbàkki menn mbokk soxna soo xam ne daf ko woolu mu ñëw mu ne ko waaye yow seexanta ndax dangaa génnu xeet wala yow dangaa wérut wala lan moo la dal mu ne ko lu xew mu ne ko sa doomi baay jii nga xam ne yéen bokk benn baay ba pare nga topp ci ginnaawam di ko mbaxar yëpp rek fu mu jëm yëg ci ne nongu ci fasam yow nga di ko jàppale ak làpp mel ne jaamam gis nga baat bi mu ko jëfandikoo mel ne ab jaamam bi mu ko waxee maam seexanta daf ne bari daw dem ca kër ga mboolem lu mu fa fekk ci ay gaal ci ay xéewal da koo yéenu indil ko soxna si ne ko maa la ko addi yàlla ngir baatub jaam bi ma tu bi ma tuddee sama digg ak sëñ Tuubaa ndax man loolu rek lay wër mooy moom mu def ma ab jaamam kooku foofu la tolloon ci sëñ Tuubaa egg na ci ne sëñ Tuubaa teema bënn sama bakkan bi def ci ab jaaru takk ci buum jox la ko nga jàpp ci moom foo toll foo jëm yóbbaale ma foo jaar ñu ne jaamam baa nga nii kii bëgg na sëñ Tuubaa looloo tax sëñ Tuubaa fayee ko li mu ko fayee gis nga baatub seex ci yoonu murit ci seexanta la njëkk a xewee maanaam boo diggee ñu naan diw sëñ Tuubaa seexal na ko mooy defal na ko lam defaloon seexanta ndax dañuy wax ni 88 bi sëñ Tuubaa sañcee Tuubaa daa ñëwaat Daaru Salaam dajale magi taalibe ya fa nekkoon tànn ci fukki fukk ak juróom juróom yam yóbbu woon Tuubaa ngir ñu sañc dëkk ba mennum Seex Ibrahima Fall la jëlaat boole ko ci mu fukk ak juróom benn la fa desoon doon juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci liñ wax bi ko sëñ Tuubaa laajee maam Seex ne ko ñaata doo ngaa fi nekk mu ne ko juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mu ne ko boo ci bokkee muy téeméer mu ne ko ah, ne ko may naa la ko ak dëkk bi maa ngi dem tuubaa looloo tax ko sëñ Tuubaa seexal tofal la mbooloo ñu ne defal na la lam defaloon Seex Anta mooy seexal na ko mooy defal na ko lam defaloon seex loolu moo indi baatub seex ci yoonu murit waaye kii bëgg gi mu bëgg sëñ tubaa moo tax bi sëñ tubaa jógee ci géej gi bi mu ko wooloo sëñ tubaa jaar sànnuusi jaar kokki jaar euh, Louga ba yàlla dogal mu ñibbi si waa mu ñëw daaru salaam maam seexanta mii moom moo ko organisé loon nganam googi nganam googi moom la ñu war a def incha allahu taala talaata bii di ñëw ngan gi moom lañuy ñuy fàttalikoo ñibbi si sëñ tubaa ci géej gi bi mu dikkee borom gaawan daf ne lépp lu dagan danaa ko rendi bi mu rendee lépp lu dagan ba noppi da cee yëkkati ay jaam daan ni sëñ Tuubaa bu re bu rendi nit daganoon danaa rendi nit ngir teralee la ko danaa rendi ab jaam ngir teralee la ko ndax rendi naa lu ne sëñ Tuubaa jaam boobee maam Seex Anta jàppoon ci loxoom teg ko ci loxoom sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ji jël jébbal ko magam borom saam jox ko ko àddiya loolu kon loolu mooy li nga xam ne mooy istuwaaru bis bi nga xam ne moom lañuy wax màggalub daaru salaam mooy sëriñ Touba ci la jóge woon ci géej gi bi mu dikkee boroom gaawaan ngan gan ko doon nganale mooy bis bi nga xam ne moom lañu wéy di ko fàttaliku saa yu dikkee njabootu maam borom gaawaan dajee ci waaye nag sant ci sëñ Touba santale ko santal maam Cheikh Anta borom Touba Xaadimu Rasuul kon muy lu am solo am solo am solo loo xam ne boo gisee histoire am moom ci yoonu murit waxtu wu ci nekk mu bari ci turandoo li tax mu bari ci turandoo mooy dafa bari woon njariñ bëgg gi mu bëggoon sëñ tubaa moo tax waa kër sëñ tubaa yi bëgg ko sëñ Abdou Xaadir tuddee na ko doom sëñ Siidi mii sëñ Siidi sëñ Abdou Xaadir wax nañu ma ne moom lañ ko tuddee boo demee kër sëñ Baara Xuréja sëñ Siidi mu sëñ Baara Xuréja moom lañ ko tuddee Siidil Muxtaar yi bari na lool ci yoonu murit foo dem rek mën naa ne da nga fay fekk am Sidil Muxtaar te Sidil Muxtaar foo moo ca fekk ñaari li ëpp moom boroom gaawan lañ ko tuddee ngir lan ak mbaaxam waaye ngir ak woyefam waaye ngir bëgg gum bëggoon sëñ Tuubaa waaye liggéey boo xam ne liggéey na ko ci yoonu murit moom dafa laxasaay woon ci lépp luñ tudd lépp lu mu gis moo xam ab tubaab a ko am moo xam leneen keneen a ko am lépp lu gis nit am ko tamuy lu dagan danaan tey sëñ Tuubaa am ci fukk ñaar waaw moom foofu moom lépp lu gis ab tubaab am ko wala nit am ko te muy lu dagan moom danaan kay sëñ tubaab am ci fukk ak ñaar ak fu ko mën a wutee nag loolu taxoon ñu doon wax dërëm ak ngërëm moo tax gis nga bi fi sëñ Tuubaa jógee moom moo organisé woon aj googu noonu ngir ànd ak sëñ Fàllu sëñ Mbàkke Buso ak mbooloo mañ àndaloon Alaaji Ibrahima Dia mbooloo mañ àndaloon ngir lan yéene ji sëñ Tuubaa amoon ngir siyaare ji Yonent bi aleyhi salaatu wa ñoom ñi ñoo ko ko mottalil kon kooku mooy maam Cheikh Anta borom gaawan yal nañ ko yàlla fayal xam naa ne euh, yéen ngi doon topp seen télé Rewmi TV euh, kaddu gi bàyyi ko fii ci euh, Solida imaamul alhaaji Mouhamed Lamine Baara mbakke tey ñu doon waxtaani borom gaawan maam Cheikh Anta di ci ziyaare bu baax a baax mboolem ak njabootam ku ci mel ni sëñ Maxtaar mu sëñ Asgede ñoo ngi koy ziyaare bu baax a baax a baax sëñ Xaabidun Mbàkke Sidi ca Paris moom ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax ak ku ci mel ne Baye Omar Amidun ak mboolem njabootuk sëñ Gaawaan gi yépp rek sëñ Maxtaar Mbàkke bayuma kenn ñoo ngi ziyaare ñëpp di leen ñaanal bis bi nga xam ne moom lañ mal suñu borom mottali ko insha allahu taala ñu daje ci ak ngërëmal borom gaawaan waaye daje ci ak ngërëmal ka gërëmoon borom gaawaan moom eh, muy Seexul Xadim radiyallahu anhu di ñaanal bu baax baax it kilifa kër gi alxaaji Mbajik ñaan sunu borom sàmm ko ba mottali mboolem ay naalam ci société bi moo ki nga xam ne moo jiite liggéey bi alhaaji Moustapha ki ci gën a kawe ba ci man mi ci gën a suufee alhaaji Malick Faye moom laa àndaloon ci wàllu xarala i seen émission keppaaru mag la woon di am dimanche bu jot lu ci jub yàlla la lu ci dëng matadi doomu aadama la in uridu ila islaaha mastataatu wa ma tawfiqi ila billah wa aleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh كيما تقود سمام للرسيات أبا إذا ازداد قلبي أذن بهجتها ووجرت لي هدايا بالمبرات أمست تطيب نفسي كي أميل لها وعودت ميل قلبي للهديات وخاطبتني بما يدعو لغذبتها وأزغرت صدق وعدي بالرقيبات تورا تديني وتوليني دوائفها وتارة ليتهدي بالبشارات لكن علمت وإلمي سوف ينفعني bi anna saatu maynin